sportif yi sportif yi ñun lañ ko defaral mais Sénégal léegi am nañ culture sport ñëpp ay sport xam parce que xam nañ ni sport mu dafa baax ci santé di woo ñëpp rek xam nga ñu ñëw man dinaa fi ñëw incha allah temps en temps dóor xam nga waaw affaire jëm kanam. waaw ah, dañuy ñëw fii xam nga am na ay courses yu mucc ayib yi nga xam ne xam def leen formation yoo xarañ xam dañ ñëw fii ñu teg leen ci yoon ba ñu tegu ci yoon bi daal. Ama moo ni woon bu la karee fekk nga nekk màgget yor ay bekke mu nangu ko donc ñu fay 80 millions. eh waxu mbër la waxu mbër la rek yooyu moom waxu mbër la affaire yi wax yomb na trop bu la caméra yi timee mais daal li suñ kanam daal li suñ kanam daal mu ngi noonu daal yàlla baax na pour may chance Ama ak keneen ku dul ay ñun ay mbër lañ pare nañ pour ñëpp waaye pare nañ pour ñëpp waaw. dañu nuyu Modou wax dëgg yàlla di rafetlu li mu def quoi wax dëgg yàlla comme euh, li wax rek. du ñëw bi mu ñëw fii du 1000 francs yuñ ko ci jox franchement mais mais mais sérieusement xam ne ñun ay ndaw parcelle lañu dañu yàgg ñun ak moom parcelle la ñuy jógee tout le temps di ñëw Kër Massar mu gis ne ay ndaw yuy liggéey lañ bu ci mënee teg loxo da ciy teg loxo moo tax wax naa ko wax naa ko keroog nee naa ko peut-être moom benn cinq wala 10 minutes bu muy ñëw du xam li muy def mais loolu ñun la koy defal quoi franchement. te loolu ñun ñoo ko xam suñu xol bu dee yàlla day fay buñ ko ko ñaanalee dina ko gis. ndax dañu def xaalis waaw dañu def xaalis ci man. dañu def xaalis ba pare moom mu def acte boobu. da bu wax na dëgg nag bu amee combat moom dañ ciy def lu ne mais franchement loolu duñ ci xaaruñ ci retour lii quoi bu doon lii lañ ciy xaar kon dinañ ci def plus pour mën a xaar lu gën a bëri. no franchement boo xoolee ni ñuy waxee ak askanu Kër Massar ni ñu génnee. ñoom ñëpp comme xamuñu mësuñu gis Modou Lo te ñu kontaan ba wax dëgg yàlla da loolu dañ koy rafetlu quoi franchement moo tax ma ne ko lu li fi xew nii ñun buñ la ko ñaanalee même bu dee 5 10 minutes buñ la ko ñaanalee ñun suñu xol yow di nga ko gis. waaw xanaa di jàmm contentement rek parce que li ñuy wax gis ñuy sonn ci yow yëpp mënoo tout le temps dem seen kër yi jox leen loxo mais xam nga occasion yi mel nii ngay am xam nga saafante ñëpp moo tax tey Ousseynou dañ ma jox beneen occasion xam nga pour ma ñëw saafante waa Kër Massar. comme ni nga ko waxee rek fii moom suñu kër la incha allah duñu fi géej dañu fi ñëw di entraîner di fi woo ñëpp rek incha allah. Mhm. sant yàlla alhamdulilah rek di ñaan yàlla na gën a jëm kanam alhamdulilah sant yàlla baax baax rek.